murid nag buñ koy wax muridulaay Baay Faal. bon maa ngi yëkkat sama kàddu ci sunu jëwrin sëriñ Fallilou Fall moom sëñ mu daminta jaar ko ci sëñ Moustapha Mbar mi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi bokk ci dongo yi nga xam ne tamit ñoo ngi ciy contrôler di xool waaye nag ci ndigalul Baay Ibrahima Dia ak Baay Baara Mbodj ak euh, njabootu sëñ bi yëpp mooy fi nga gis ñu taxaw nii tey mooy Tëriñ Joobentaay mi ngi jëm fi ñuy wax bituk américain dugg nag ci biir marché mooy gannaaw bi ma xamee ni Serigne Cheikh Jëmb yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko lool jot na ndigal ci xel général des Mourides ngir sekkarti canal yi Touba gis nga tey yéen yéen a gis li fi génn ci ci poids ak ton ak ay toil ak ay mbuus ak ay médd ak ay weñ ak ak ak ay tiwo yoo xam ne ay fonce la fonce cabinet ak fonce ndox yéen a gisal seen bopp kenn du leen ko wax du fi jeex Baye li liñ ci def lii ma gis ñu génnee ko tey ngeen gis ko su fekkonte ne bàyyi nañ ko ci canal yi rek moo tax inondation am parce que depuis suba ba lay yaa ngi jël ay camion di yóbbu te mënagul jeex ñan ñoo ko def mooy population Touba gàcce nag mënut a paase nga yàq sa sëñ bi defaral la état defaral la nga yàq ko ba Baye Fall ñëw di la ko defaral xoolal ñu ne Touba fi toll ñu bari génnuñu seen i kër ñenn ñi tijji nañ seen i place may ñu Baye Fall fu ñu balee waaye ñoom tutee ñi ngi def seen liggéey ndax la sëñ taxa waxoon rek la ñuy dëggal mooy bëgg nañoo liggéey liggéey bi waaye nag du ñu gaañ kenn du ñu rey kenn danañ la fitnaal nag ba moom bëggu sëñ bi dana am loolu mooy li nga xam ne moo tax ñu def ko tey euh, ñu ngi ci continuer quoi ñu ngi ci continuer. Baye Fall li tax yàlla sunu borom sàkk ko mooy Serigne Touba Serigne Touba la nu fi ñaar la kee mooy joxe ndigal kii mooy jëfe ndigal ndax Cheikh Ibra Fall ko njëkk a wax ci kaw suuf. ci jëmmi sëñ Touba ji loo ma digal ma def yem fa. digalu sëñ fallu nag moom sëñ Fallou wax na ni bu kenn dugg biir kër jàmbur di toj dara sëñ Fallou moom sëñ moo deminte loolu la wax mooy canal bu ñu branché daal muy tiwo ndox wala tiwo fonce ndax gaa yi dañoo def tiwo ndox mais dañ cee branché seen tiwo fonce yi ak tiwo raxasukaay yi da doon xeeñ bay àgg ci jumaay Touba ji ci secteur yëpp nag secteur boo dugg am na fa ay taalibe yu néew doole def nañ ko ay ñenn ci kilifa yi def nañ ko mais ñëpp lañ yabale dañuy dañuy dañuy dañuy dindi réseau bi ba pare gas fi nga xam ne fi la bi nekk ba tolloog sa kër dagg ko sakkal la ko ciment dégg nga ba bëggu sëñ bi am loolu daal moo amagun pour le moment. xooluñu lenn ci kaw suuf lu ndigal sëñ Touba sëñ Bamba day digal Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima digal nu nu def mooy Baye Fall amuñu ci dellu ginnaaw na moo taxam Cheikh Moudou Fall lu Fall mu tedd ma daan wax naan dañoo defee ndax man ab ragal laa waaw. ndax ku am loo bëgg da am loo ragal ndax ku yoot dara nit dina la dóor boo ko gisoo ñàkk loola waaye nag bala ñoo xam ñeme naa wala déet dañu maa jox ndigal nga dox sama digganteeg ndigal la. sañu ñu koo bañ ku ko sañ a bañ ñu duma la gars yi am nañu ñu doon a joteel waaye dañ koo nangu mel ni taalibe yi nangu nañ ko ndax Baye Fall moom dañu la dañ koy def far force ndax foofu lañ toll fi ñu moom bëggu sëñ Mountakha moom def lay doon far force rek ay waxam fu mu ko waxee rek dañ ko war a jëf. foofu lañ toll li ci nag mooy Touba du am du loo fi gis ñu def ko du am suivi mairie bi ak kilifa yi nañ jël seen i responsabilité mooy Baye Fall li defal lii ba pare ñu bàyyi ko ñeneen balaax la ci ay tiwo balaax la ci ay kanaal ba pare ba pare dégg nga la ko bàyyi nit ñi ci tuur lu leen neex defar sa kër ba mu rafet defar say fonce ba mu rafet defar say salle bi ba mu rafet nga jël tiwo fonce génne ko ci biti taman faa def fonce perdu awul yoon même fond si mbedd yi am na ci ñoo xam ni dégg naa ni dañ leen di autoriser pour ñu def ko te loolu bari na ci yoo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la am na fonds yoo xam ne ay nit tàbbi nañ ca faatu. kon nag ku dox sunu digganteeg ndigal di nga xam lan mooy nun kon nag defal nga def baal nga baal nun mooy sunu mbir noo ngi ci yoon wi li nu sëriñ bi digal na nañu ko yàgg di digal nu yàgg di ko jëf rek tàmbale ci sëriñ bi yam ci sëriñ bi rek ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh sëñ Cheikh Jëmm Fall mu tedd mi yàlla na fi yàgg te wér sëñ sëñ Muntaxa mii di Xaadimu Rasuul yàlla na fi yàgg te wér am na ñu ne mairie bi lañ mën naa am gawuma ko am na ñoo xam tam nee nañ mairie bi lañ jox ndigal waaye fond si mbedd ba pare melu ni mu war a mel amul kubéer nawet bi bu tawee tey bu amee inondation da ngay gis ñoo xam ci ci weti miir la ñuy jaar ba tàbbi ci fonds de loolu am na kon wat matuwaay war nañ ko jël contrôler canal yi contrôler fonds yi contrôler ñi ciy tuur ndax tëli yi dafa toj yooyu yëpp dafa jaadu. noo mairie bi moom li ma leen di message bi ma leen bi ma leen di lancé mooy am nañ aw sas ndax at yiñ passé yëpp ay millions la ñuy jël di ko teg ci loxob Alaaji Njaay programme wala ñu koy teg ci keneen wala ñu koy teg ci keneen ñuy def seen inondation ñoom xaj na la leen war ña koy def xaj na dañoo mu doole ji mat naam waaye nag am na fu ñu leen di condamné benn yoon mooy suivi lañ dul def. njëlbeen moom mën nañ ko am ak mujj moom duñ ko def nit nag boo am njëlbeen da ngay ba mujj ga sotti dégg nga waaye daal gàcce am na ci mooy bàyyi sa dëkk bu mel ne Touba ay ay ay ay Baye Fall jógee feneen ñëw di la ko defaral te yow nga yàq ko loolu moom du ndam te ñoom ñoo ci waroon a jiitu donte maa ñi ngi ci sax waaye ñoo ci waroon jiitu loolu nag nañ ko bàyyi dañ bàyyi lu xew rek ñu daal di gaaw fexe ba sëñ bi joxe ndigal wala sëñ bi sax moom mooy seet ku ko neex mu joxe ndigal waaye diggante sëñ Touba ak Cheikh Ibra moom sëñ ko Cheikh mu def ko na ko bëggee message su yi mooy danañ contrôler canal yi kuñ ci jàpp la ca war danañ ko def wasalaam.